lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko lislaamaa ngi jooy jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux suux jugleen suuxat ko ما عليك يباس وبعد عنك lillahi ala nicmati lislam summa alsalaatu walsalaamu ala ashrafi almursalin muhammad ibni abdillahi wa ala wa sahbih rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli kon man may imam Zakaria Cissé dëkk fii ci mën naaw cité Teranga mais ñu bëri dañuy wax jaxaay fas face lycée bi ñor fi jàkk bu ñuy wax masjidu tawba di nuyu ñëpp ñi nga xam ni dañuy topp Mouslih TV ci mbooleem li nga xam ne moom lañ koy indil ci ay programme di jagleel nuyoo Saïd jàlloo li nga xam ne moo ko yor lu jiitu it mooy borom bi subhanahu wa taala moo moom àdduna moom moom ñi dëkkee àdduna man nga wax ni kon moom moom kër gi moom moom ñi dëkkee kër gi moom mooy dogal ci ay jaamam lu ko soob mais moom moo tëral àdduna ak nit ki ni mu bëggee pour mu nekke ko ci àdduna ak ni mu ciy dunde loolu moo tax bàyyi ko ak boppam mu yónni ay yonent wàccee ay téere ba mu mujjee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam alquran mujje ci téere yi pour ñu leeralal nit ki kan mooy boroomam naka la koy jaamoo lan mooy relation digganteem ak boroomam leeralal nit ki kan mooy moom ci boppam en tant que nit lan mooy relation bi mu war a am ak boppam mais leeralal nit ki moroomam lan moo ko boole ak moom mais leeralal nit ki aussi li nga xamante ne moom mooy environnement bi muy dundu nim ci nim ci war a nekkee lépp mu tëlal ko limité ko jox ko ay frontières ay daytal donc kon li jiitu mooy nit bu yamee fi mu war a yam def li mu war a def nekke ni mu war a nekke dunde ni mu war a dunde yeneen mbindeef yi nga xam ni yàlla da leen bind pour leneen duñu am benn jote bu ñuy jote ak moom mais léeg-léeg nit mooy wàcce yoon wañ ko tegoon dunde ni wuuteeg ni ko boroom sante mu dunde nekki nekkin wu wuuteeg ba ko yonentaam sallallahu alayhi wa sallam pour mu nekke noonu su ko defee loolu jur ay jafe-jafe jur ay tolof-tolof parce que nit yamul fu mu war a yam léegi da ngay jàng si alxuraan lu bëri wa tilka xududullahi fala taataduha ko tilka xududullahi fala taqrabuha lii day ay daytalu yàlla la bu leen ko bu leen ko jéggi yam leen ci lii de ay deytalu yàlla la waxuma laa jéggi sax mais bu leen ko jege kon li xew ci coronavirus comme ni ñu ko xamee mooy doomu aadama moo yemul fi mu war a yem lekk lu mu warut lekk virus boobu daal toxu ñëw ci moom ak ni muy euh, soppeekoo ak ni mu gaaw a tasaaroo ak li mu nekkee loo xam ne lu doy waar la. ëlëm àdduna tey ba amaguñu loo xam ni moom moo koy moom moom moo koy faj kon premier chose bi ci jàngat mooy doomu aadama moo wàcc yoon wi nga xam ne moom la ko borom bi subhanahu wa taala jaarloo mu jur li parce que loolu toujours day am ay conséquences yoo xam ne moom lay indi. tey yàlla nee na dama koy damay jox nit ñi wala conséquence yi dañ koy dañ koy dund. naa leen mosal leen loo xam ni jalgati la fi ñu waroon yem yemuñ foo li ñu waroon def defuñ ko def leneen lu dul loolu pour ñoom ñu mën a dellu siwaat ci man kon coronavirus ni mu yaaxalee àdduna ni mu lëmbee àdduna ba tey daanaka amul réew boo xam ne dugg ci ci àdduna wala bu amee yu néew la yoo xam ne mën nañ ko wàññi ak baaraam kon loolu euh, jàngat bu njëkk bi mooy wàcce yoonu borom bi conséquence la ci tey nag fi ñu ci toll ci àdduna mooy ñëpp jaaxle nañu réew yëpp comme ni ñu ko gisee ñu ngi euh, def ay góorlu ay pexe euh, ñenn ñi balaa mu fay dugg nu ñuy def ba du fa dugg mais loolu teewul dugg na fa après bi mu fa duggee yan mesure nañuy jël pour gën ko mën a limiter tey am na ñoo xam ne àgg nañu mooy bu kenn génnati tey am na ñoo xam ne àgg nañu ci nu ñu gën a mën a néewalee dajay mbooloo yi ñu néewalee ko noonu tey àgg nañu foo xamante ne débat beeg coow li ñu ngi doon wax léeg-léeg ñu jël ko ci loo xamante ne dañ koy toxal jëlee ko ci réew yóbbu ko ci réew wala ku ko am wala ko keneen mais tey ñu ngi wax ne am na ñoo xam ne am nañ ko du si ñaari façon yooyu nañu ko amee mais daanaka ci jaww ji nañ ko jëlee ndax nee nañ virus bi bu fekkee ne dafa des jaww ji mën a toog trois heures de temps te du te du dee wala doog a doog a dee kon tey àdduna fi ñu toll coow léeg ëlëm na nit ñi ñu ngi jaaxle mais yàlla moo bind virus yàlla moo bind nit yàlla moo yor ñaar yooyu yëpp kon li nga xamante ne moom mooy njàngale kër docteur si li ñuy jàng loolu wax ci matukaay yi ñu jël ko bàyyi ci xel mais njàngale lislaam tamit gannaaw jël matukaay yooyu dellu ci borom bi tuub tàllal ko ay loxo rëccu mbur mu delloo loolu ak balaa beeg jafe-jafe yeeg xat-xat yi ndax moom miy feebaral moom rek mooy ki nga xam ni dafay dafay dafay wéral yaakaar naa virus bi euh, comme ni ñu koy waxee lu nekkoon la dund ndax ñoom ñoo jéem denc après tas ko ci réew yi ak lu ci mën a am duma ci duma ci dogu duma ci taxaw du ma dàqal loolu du ma du ma ko saxal ndax amul firnde yu ma koy yu ma koy dàqee mais amul firnde yu ma koy yu ma koy saxale mais euh, ñoom même bu fekkee ne def nañu loolu mënuñoo def lu soobul borom bi comme ni ko yàlla waxee wa ma tashauna illa an yasha allahu rabbul alamin amul lu leen di soob yéen doomu aadama yi pour loolu nekk ci seen kàttanu bopp ci seen pexe bopp ci seen mën manu bopp yéen rek ngeen bëgg dara loolu am te fekk soobul borom bi pour loolu am kon kàttanam coobareem man-manam si la yooyu di amee moom borom bi subhanahu wa taala moo tax jullit bi même bu fekkente ne jàpp na loolu ndax xabaar yi ko dikkal doy na ko wér na ci moom du tee dana delloo mbir yi ci borom bi ndax borom bi moom mooy feebaral mooy wéral moo bind ñaar yu safaanoo pour ñuy mën a ràññaatle mbir yi wa min kulli shay'in xalaqna zawjayni la'allakum tazakkarun lu nekk ñaar laa ci binda ndax ngeen mën a waaru góor jigéen guddi bëccëg lu baax ak lu bon lu rafet ak lu ñaaw mais feebar ak wér ak lay sabat feebar ba ak lay sabab wér ba kon même loolu bu amee tamit toujours ñun jullit dañuy delloo mbir mi borom bi ndax amul luy mën a nekk lu dul ni daf ko soob amul lu mën a nekk lu dul day tegu ci kàttanam amul lu mën a nekk lu dul mu nekk loo xam ne day tegu ci xam-xamu borom bi ndax amul lu koy échappé ci nguuram moom borom bi subhanahu wa taala nga diine lislaam diine la boo xam ne dafa matale dafa ëmba dund nit ki yëpp ak dundinam ak nekkinam amul dara loo xam ne moom la bàyyi ma farratna fi kitaabi min shay amul lenn loo xam ne dañ ko sàggane ci téere bi la wa kulla shayin fasalnahu tafsila lépp leeral nañ ko détaillé ko ci li nga xam ni moo nekk téere bi ci façon leeral yi nga xam ni moom lañ leerale lu ñu tuddee anwaa ut dalaalaat bañ dugg loolu torop ci usul façon xeetu tegtal yi ak nan nañu mën a jëlee lii dey junju lii lii day wane lii lii day leeral lii ku ko xam-xam na ko ku ko xamul xamu ko mais alquran amul dara loo xam ne moom la moom la bàyyi kon euh, normalement téere bu mel nii jullit bu ko amee war na di anticiper yu baree bari balaa sax ñuy àgg ci dogal yi di xool loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy xalaat ak gis-gis bi nga xamante ne moom la jullit war a am parce que alxuraan toujours daf koy xiirtal ak di ko ñaax ci yu mel noonu tey bu ñu demee ba àgg ci jamono bi fii ci Sénégal kenn ni virus bi dugg na non seulement dugg na mu ngi tas tasaar boo xam ne bu gaaw la lool sax tey àgg na foo xam ne ñu ngi wax ni daje yu mag yi. dañ ko war a arrêté loolu ci wàllu gisin ci en tant que ku jàng diine balaa état doon àgg foofu ñoo ñu waroon nañoo mën a xalaat ni muy tasaaroo ci àdduna balaa mu fi yegsi li muy rey ci ay nit normalement tey bu ñëwoon fii wala bu muy balaa mu yegsi foofu waroon nañu mën a génne fatwa bi wax li su agsee fii préparer nit ñi pour nit ñi mën a bàyyi xel ca loola mais booy xool en général décision yi day topp décision politique ñun du ñu jiitu politiciens yi mais politiciens yi ñoo ñuy orienté bu njëkk ba borom xam-xamu diine yi ñi yore nguur si ñoom nañ doon dem di jël seen xalaat pour wéyal li nga xam ne moom la ñu bëgg a wéyal mais tey borom xam-xamu diine yi daanaka ñooy dem ci nguur pour mu jox leen xalaat pour ñu mën a wéyal li nga xam ne moom la bëgg ñu wéyal ko li ma bëgg a wax mooy tey décision yu bëri yoo xam ne ñëw na ci borom xam-xam yi dafa fekk mu nekk loo xam ne day topp li nguur toll ne lii. jàpp nañ ni dafa war a ne léegi nag ñuy jéem a wutal loolu mu jàpp dafa war a ne ñu koy jéem a wutal solution ci diine te warul woon demee noonu loolu benn la ñaareel bi mooy lu mel ni bu amee lislaam diine bu am ay mbir yu sax la mais diine bu am ay mbir yoo xam ne dana soppeeku ni jamono di soppeekoo ni palaas yi di soppeekoo ni situation yi di soppeekoo ni circonstances yi di soppeekoo su ko defee yooyu nga xamante ne place jamono mbir yi day soppeeku ñu xool par rapport ak texte yooyu naka nañ koy wàccee ci contexte boobu pour mu mën a adapté wu ak moom pour mu mën a méngool ak moom la ñu tuddee a assawaabit wal mutaxayiraat mutaxayiraat ci wàllu fatwa parce que xew-xew yi dañoo limité wu astafirlah euh, texte yi dañoo limité wu mais xew-xew yi limité wuñu léegi nag li limité wul il faut ñu koy delloo ci li nga xam ne dafa limité wu léegi nag lii nga xamante ne mooy xew-xew bii nii li waroon jiitu mooy du fatwaa benn nit moo ci nekk comme ni mu nekkewul sax parce que ay kuréel nañuy wax mais waroon naa gën a mën a yaatu parce que luy concerner réew lépp la te luy concerner réew lépp la dafa war a am euh, crédibilité boo xam ne réew bi yëpp dañuy nangu loola mooy ku nekk gis ci boppam ku nekk gis ci boppam tey Sénégal ak ni mu bindoo ni mu yaatu ak ni ko formé ci wàllu ñuy tuddee association islamique yi turuqu suufiya yi ak euh, léeg-léeg wute ci wàllu dégginu diine ci ni mu demee yu mel ni am na yoo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy julli jumaa bi muy julli juróom ak réew mi ak ni mu demee yooyu li gën suy am ñooñu toog waxtaan ba buñ jëlee benn kàddu réew mi yëg ni lii réew mi yëpp ñoo ko jël jullit ñëpp ñoo d'accord ci lii su ko defee loolu mën a wéy gannaaw bi nga xam ne nag déglu nañu ñi jàngal loolu ci wàllu feebar bi xam ko danger bi ci nekk ni muy tasaaroo ni muy wàllaatee nu ñu war a fagaroo ak situation yi fi mu toll. lii laay conseillé surtout jullit ñi delluwaat ci borom bi tuub rëccu jàng alxuraan def istigfaar jégalu borom bi saraxe. yu baax yooyu nga xam ni loolu yàlla waxoon laallahum yarjiun ngir ñu mën a dellu siwaat loolu mooy dellu si bi mooy rëccu li weesu fas yéene bañ cee delluwaat dal bàyyi yoon bi baaxul bi jël yoon bi nga xam ne mooy yoon bu baax ñu ngi leen di dig daje ci àllarba bu soobee yàlla ci benn programme ak émission boo xam ne ñu ngi koy tuddee lu jar a xam fii ci musli TV. di jooy. jooy. jug leen dalal ko. islaama ngi suux. suux jug leen suuxat ko.